bëggee misaal ëllëg na mu yàggee ndax moom du jeex ak dund gii moom ni mu yàggadee ndax lu yàgg-yàgg day jeex dañ koy misaal ci ëllëg moom bu yàlla sàkkoon rek menn picc menn picc dong dong muy fab peppi suuf yi bis bu ne benn pepp menn picc dong ak ni fekk Sufi yi bare bis bu ne benn pepp rek lay jël ko it peppi suuf yi dana jeex te ëllëg moom du jeex loolu mit kon nag dundug doomi aadama ni mu gàtte daa war a rek farlu ci lu baax ndax bu dund gi jeexee mu tàmbali dund gu neex a neex te amut fu muy yem wal taalaman na nga xam bi anna iktarahuma ci naka seenu bari ñom ñaar ma kafratil afati andak barik bari ay gak aw tarkahuma wala seenu bayyi ñom ñaar li fiha ngir ragal ay gak aw hadamil hudhuri wala ñaka teew ga fil qalbi ci xol lo lepp jaa dikna min a'zamil ghururi bok ci gën ja maggi ak woru mune nak ngay jëm xam-xam beeg jëf ji di sell waaye loo leen baril baril baril te selluñu rek xamal ne ci waru nga nekk baril xam-xam ngi jëf gi te ak sell amu ca ak waru la ba te itam nag ne man daal xam naa ne su ma dee jéem a jëf wala mooy jéem a jàng itam duma ko mën a sellal kon nag naa rekk bàyyi du ma ci sàkkoonte xam-xam du ci sàkkoonte jëf jiwu ba tey ne xam naa ci saa bopp ne bu ma dee jëf du sell la bu ma dee jéem a jàng duma ci am yéene ju sell faaw rek du baax kon naa bàyyi loolu ak waru gu rëy rëy ba tey it ne man daal duma ci jéem a jàngante duma ci jéem a jëfante ndax sama xol ci boppam moo ci dul nekk mooy duma ci amuk teewlu dégam duma ma ci amuk teewlu nag moom te teewlu ga moo ci am solo damay bàyyi rek benn yoon kooku mu ngi bokk ci moom it waru góorëy muy bàyyi ko ci seytaane ndaxam sax teewlu gi moom dañ koy taamu ci xam-xam bu ne ak jëf ju ne waaye nag na jëf rek te yaakaar yàlla may ko teewlu googule jamono yam gën a ñàkke ak teewlu ci jëf jaag la mu yëngatu du teen rafet njott rek te ñaan yàlla te def rekk xëy na yàlla fekk ko ca la ko jafe woon lépp wëlbatiku yomb seytaane mi nga xam ne mooy noonu nit day jéem rek nit du def mukk lu baax na muy fexee ba du ko def nag yu bare bari dana ko ci jaare yàqum xelam ca loola ne ko lii boo ko defee nangam ak ki nangam mu daal di bàyyi kon jaam bi nay jéem xam-xamam ak jëfam di bari tey sell mu ci amuk teewlu waaye nag su fekkee ne sell ga gis na ne yóbbu ko mbaa teewlu ga yóbbu ko it na dafa njort ci boroomam rek di góor góorgóorlu te yaakaar yàlla wëlbatiku xettali ko ndax ak mujj rek moo am solo mu yaakaar rek nag yàlla defal ko mujj gu rafet wa tarkuka sag bàyyi at taw ba tëtuub xaw fa an taxooda ngir ragal a dellu ilal maxaas yi jëm ca moy ya kay du iblisa pexem iblis la di almaridi kay aji fetteerlu ba tey it nee na ne man daal bakkaar bi moom gañe na ma ba noppi jërul ma di ko tuub ndax xam naa ne su ma ko tuubee itam dama cay dellu rek loolu moom bokk na ci pexe yi gën a yu iblis di fexeel doomi aadama wan ko ne ko yàqu nga yàq goo xam ne ak defaru wees na ci yow seytaane day fekk ka nekk ci lu baax mu nax ko ne ko yow daal raw nga ba noppi doo yàquleeti mukk mukk fekk nag ka nekk ci lu bon mu naaguloo ko yërmande ne ko yow daal doo jagati mukk mukk kon nag jaam bi lu ko yàlla na too ci xeeti mooy yàlla yi lu mu bari bari ak lu mu ko gañe gañe nay farlu ci saa yu defee mooy yàlla ga rek reccu ko ñaan yàlla jéggal ko doon sax bis ba dana ko ci def ay yooni yoon sarti tuub moom muy reccu gi ak dogu ci bañ caa dellooti te bàyyi ko fa saasa saa yu ko jaam bi defee rek na xam ne loola yàlla ko kon nag lu bàkkaar yi bari bari nay jéema tuub rek yàlla mën naa mujj dimbali ko set wecc tuub tuub gu sell bañ a jegeeti benn bakkaar te ku jaaran ci ay bakkaar walbatiku tuub ko day mel ne ku ca mësta jaar at taibu min az-zambi kaman la zamba la dañoo wuti sax ci ku mësta jàdd def benn bakkaar moo ki nga xam ne daa bari ay bakkaar te bari tuub kan moo ci kën ci ñoom ñaar ndax daa am addis boo xam ne xayrukum kullu mufattanin tawaab ay kathirul ibtilaa'i bi dunuubi taw tawba addis ba dane ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne bari na lu muy jàdd lool waaye dafa bari it lu muy tuub lool lool walaay lu mu xam-xam afdalu moo gën ak yow sama bokk minal xamali ci jëf wa ussuhoo te moo di fondement am mooy cosaanam fafaasa texe na man ka nga xam ne xasala am na lëxoo ko danaa ba ñu taggee xam-xam ak jëf ne la ñoo di yaar yi nga xam ne ci la ñuy amee texe teeg ëllëg mu ne nag taxut ñu yemoo daraja xam-xam moo ëpp daraja jëf ndax bu xam-xam amut jëf du man a am ndax kuy jëf te xamut la muy yàq muy ëpp la muy defar yonent bi nee na woon sax man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala llaahu lahu tariqan ilal janna ku yoonu sàkku xam-xam xamal ne yàlla yombalal na ko yoonu dem àjjana laakin nama tamaruhu waaye nag meññatam kan nafi ni ki njariñ la fii amali nekk na ci jëfe bi ci moom fa ku nekkal dal jamxi di boroomu boole yooyu yaar mu ne waaye nag xam-xam kat li muy am am njariñ mu ngi takk ko rekk ci nga jëfe ko dafa mel ne garab garab ca dëgg-dëgg mooy am meññet mooy am ker nga xam ne bu garab gi amutoon duñ mën a séentu meññet am walla ker waaye nag garabu kese goo xam ne amul meññet amul ker itam te daldi ñak njariñ kon nak faaw nga jema boole xam lu baax te diko ko jëf ngir yalla xam safaan ba te diko moytu ngir yalla qaliluhu aji bil hilmi andaku xam bari tawaban ci abi yool minal ci aji bari ja maha jahlin andaku reer lartiya ba amul ben xeetu sikki sàkka ci loolu ni amul ben ne jëf ju néew ju ànd akuk xam moo gën jëf ju bare bari gu àndut akuk xam loolu amul werante naa fi xuxu aji jariñam nag moom xam-xam allësi mooy xam-xam ba nga xam ne alfata cam sa xam xamlu na ko lillaahi ngir yàlla jàll màgg na waxdahu moom rek wa allama te mu jàngale ko xam-xam ba am njariñ nag mooy ba nga xam ne naka koo koy jàng sàkk ngërëmul yàlla dong dong moo tax mu jàng ko gannaaw ba mu ko jàngee ba noppi tam mu wëlbatiku di ko jàngalewaat te yàlla rekk tax xam-xam mel noonu moo gën ci xeeti xam-xam yi laamaa du caagéenu ba nga xam ne tool li ma xam loof na ko miraa an ngir werante wariyaa an ak ngir ngistal awil mubaahaata wala puukare woo nga bisi ci moom fa tadriyan na nga xam wala lësi du caageenu ba nga xam ne su yidat rëbboof na adduna bi bisi ci moom li xub bi jaahin ngir sopp daraja wa maqaamin akub maqaama naa bi aji yëkkati ko wala lësi du caageenu xam-xam ba nga xam ne yutala bu def na ko sàkku li taxayuli ngir bi bisi ci moom li sarfi kulli xalbin ñeel walbati bépp xol faaqil na nga xellu xam-xam li muy baax baax day bari yu ko yàq ndax la ko tax a baax mooy niñ ko waxe mu jàng ko ngir yàlla di ko jéem a jëfe ngir yàlla di ko jéem a xamle ngir yàlla la koy yàq nag mooy ñàkk sellal ci jàng ga xam-xam ba ni ki di jàng rekk bëgg bari xam-xam ba ñu ne moom daal boroom xam-xam bu mag a mag la wala bëgg a mën a weranteeg boroom xam-xam yi walla bu këréwoo xam-xamam fi seen kanam wan leen leen maa raw wala xam-xam bi wut ca lu may àdduna rekk ak wëlbatee ko xol yi ñu wut si ko yéene yu demee noonu ak jublu yu mel noonu mooy yàq xam-xam ba ba mu soppiku lor te fekkoon ci cosaan xam-xam njariñ la woon moo tax mu tekki ne fa kullu man képp koo xam ne taallama xamlu na alxolooma xam-xam ya bi atinaa ànd ak sonne li haadihi al ashiyaai ngir yile yëf walam ya tub te tuubut qabla al mamaati ci njëkk faatu ga wala kibari ak mage ga mu daari kan mbir mu ngi aji dabaatal maa la nga xam ne faataxoo rawoon na ko waxta sixari ci waxtu ndawe wa falaa laxoo kon deddi ko ñeel yow ma su'aali ci bisub laaj ba wal xisaabi ak xisaab ja siwa wabaalin ndare musiba wa malaamin ak yeddeel wa xazaabin ak mbugal li anna ilmahoo ngir naka xam-xamam ba yasiru dana mujj xujjatan di aw lay xadul ëllëg xalehi wu daanu ci kawam faxsha na ragal tilkal xujjata woowee lay ku jàng xam-xam ngir yi demee ni yi mu wax rekk maanaam daal jàng ko te yàlla taxut la cay baax daal mooy mu teel a tuub teel a dabaatal la ko rawoon jublu ci boroomam jublu ci sellal ndax mu dabu la ko rawan waaye bu fekkee ne jàngutoon ngir yàlla jëfewutoon ngir yàlla wéy ca noonu rekk ba faatu kon bu bis pencee mooy gën a metti mbugal ndax nee nañu ku xam te xam nga jëriñu ca mooy gën a metti mbugal bu ëllëgee moo tax mu nekkoon bis ba ñuy laajee ka fay ay jëf dafa am lu may musiba ak yaraange ak mbugal ndax kon xam nga mu xamoon day soppiku aw lay wu koy yey waaye du soppiku lay wu koy taxa yey xujjatan alayhi bokkut ak xujjatan la xujjatan la mooy lay wu koy amal njariñ wu koy taxa jàll xujjatan alayhi mooy lay wu koy tee jàll maanaam moom ndegam xamoon na rek dañ ko wax ne ko yow xamoon nga ki xamul sax mën na ne moom xamutoon fa naafiul ulumi aji jariñi xam-xam ya aydan ba tey maa mooy xam-xam ba nga xam ne afaada jariñ na saaxibahoo boroomam xasiyata xaalixal xibaadi ragal aji bind jaam ñi wa dulla ak nangoo torox wa zuhda ak dëddu àdduna wa kasratal adabi ak bari teggiin wa jazabate mu ñor ko liftixaarin jëme ci aajowoo yàlla wa tawaaduhin akuk toroxlu wa taharate mu laabal alxalba xol ba wa xamaxate mu not nafsaxoo bakkanam wa manaxate mu fekk min maxaasi xaalix li waraa ci moy yi aji bind bindeef yi amal lësi yi ndaal xam-xam ba nga xam ne lam yëkku nekkut xëkkasaa niki nii falam yam naa du mën a fekk xadan ci ëllëg min naari rabbinaa ci sawara sunu boroom na waaw mu dellu ci xamle xam-xam bu am njariñ bokk na ci tegtali xam-xam bu am njariñ ka ko xam nekk di ku ragal yàlla tey ko wekk ko màggal ko nangoo suufeel boppam te yàlla tax wan gannaaw lépp lu dul yàlla bari teggiin fu mu toll di aajowoo ak toroxlu jëm ci boroomam xam-xam ba tax xolam laab set wecc ci lépp lu yàlla gërëmut xam-xam ba it tax muy ku not bakkanam te bakkanam bañ koo not xam-xam bi tax muy sori lépp luy xeetu mooy yàlla te farlu ci topp ko xam-xam mel nii ci dëgg-dëgg mooy xam-xam te mooy tax jaam bi mucc bu ëllëgee ci sawara waaye xam-xam boo xam ne demewul nii turu xam-xam wa rekk moo fa nekk waaye ci dëgg-dëgg du xam-xam te it du mën a fekk ëllëg sawara wa afdalul ulumi gën ji xam-xam ya bil itlaaq yi ci ak boyal itlaaq mooy ci lu amul teqale naa bi ak baa tawxiidu rabbina moo di wéetal sunu boroom xalaat tifaaxin ci ak dëppoo wa baadahu nekk na ci gannaawam at tafsiru xam-xamu tafsir xam-xamu firi lil quraan yi ñeel al quraan tumal xadiisu topp addis xaalahu wax na ko ad daymaan yi ad daymaan yi gannaaw ba mu nee xam-xam ak jëf ji yiw ci lañuy amee texe waxit ne xam-xam mu ëpp daraja jëf daa bëgg a wax nag ne xam-xam yépp kat yemowuñu gënaante nañu appante daraja lool jëf itam noonu boo demee jëf yi gënaante nañu appante ay daraja lool mu tàmbalee nag ci xam-xam ne xam-xam bu nekk day la muy jàngale rek mooy tolloog dara jaam kon nag tawxiid moom ndegam day jàngale lu aju ci suñu boroom nañ koy gëmee wéetal ko kon xam-xamu tawxiid mooy gën ci mboolem xeeti xam-xam yi bu jàllee alxuraan mi nga xam ne wax yàlla ñu firi ko leeral ko dañ mën a xam la ci jaam ñu war a jàpp ak lañ ci war a bàyyi kon mooy gën ci xam-xam yi gannaaw tawxiid bu jàllee addis bi nga xam ne mooy wax yonante bi damooy leeral alquran nga xam ni sax moog alquran ñooy cosaani xam-xamu shariha mooy ci ñoom la ñuy xam-xamu lislaam yetti xam-xam yi tawxiid jiitu tafsir topp addis topp ca yetti xam-xam yi ñoo gën ci xeeti xam-xam yi wa xayruha bëggan ca ñoom min baadiza ci gannaaw kii te mooy tawxiit wa zeyni ak gannaaw yi la yaar muy tafsir ak addis ilmu tafaquhin mooy xam-xamu fiq bi xëyri may nin ci lulu fen soo weesoo nag xam-xamu tawxiid ak tafsir ak hadis moom xam-xamu fiq mooy gën ci xam-xam yi ndax mooy li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi dégg ci alquran ak hadis ba nag boole ko ci ay téere bañu ñu mën koo jariñoo wa baada diin madkurati nekk na ci gannaaw yile yu tudd al alaatu jumtukaay ya ani dana jublu xalal xasabi ci kem njariñal ku ne yaaxu daatu yéen way jubal ñi jamhu haadin aji jubal mooy yaaxu daatu kan naxwi niki naxu wal xaroobi ak xaroob wal bayaani ak bayaan wal luxati arabi ak langu arab wal mahaani ak mahaani boo weesoo ñeenti xam-xam ñee tawxiid tafsir hadis fiq xeeti xam-xam yi des dañ leen a ay jumtukaay maanaam boo leen xamee dañu lay dimbale ci nga mën a géeju ci yeenti xam-xam nga xam ne ca dëgg-dëgg ñooy xam-xam ndegam nag ay jumtukaay lañu yu lay dimbale ci nga mën a géeju ci yent yee kon duñu leen yemale dara ji ñoom ñëpp kenn ku ci ni daal kenn nam la mën a dimbalee ci la nga bëgg rek noona la njëriñam toll kon nee nañu xam-xamu naxwu ak xam-xamu luxa ñoo ëpp njëriñ ci mbooleem xam-xam yii ndax ñoom ñoo lay may nga mën a gëstu xam-xam bu ne waxasee xereñe luxa maanaam baat bu ne la muy firi ak lañ koy jëfandikoo xam naxu buñ tegalee baat yi nu muy tegaloo ak tegale ba lu muy joxe ci maanaa yooyu ñaar moom mëni su ko ñàkk aajowoo ci mboolem xeeti xam-xam yépp te boo leen man rek daanaka gëstu moom daal di bu baax a baax ci xeeti xam-xam yu baree bari su ko defee xaroobu mooy xam-xam bi jàngale wàllu wayu arab yi ndax lépp ci secret wax arab yi dañ ko dugal ci biir seeni way nga xam ne man wayi arab yi ak xam la ci aju day tax nga dégg bu baax loxob arab bi ci boppam daal di mën a géeju nag ci yee nga weesu muy tawxiit ak tafsir ak alquran ak hadis almahaan yi day dugg ci ulumul balaaxa ulumul balaaxa moy xam-xam yi lay jàngal secret nek ci wax da nga mën xamé bu baax baax alquran ñu fété kaw mbolem xéti wax yi ak gannaaw ba ni hadith fété kaw mbolem xéti wax yi ak gannaaw ba ni wax yi kat yi apanté daraja xam yi balaaxa yoy nak dañ cey jital almaani teg ca mujjé al badiya dañ yett wayé al mahani mo upp ñariñ al bayan top ca al badiya top ca kon xéti xam xam yi dañoo bari te dul gi gatt kon nak ngay xéet da la ëppal solo nga jittal ko tek ca la ca top nak ba fusa ba fusa dund yam rek nga xamni fofu la dund ga yam wa afdalul amali gën ji jëf maa mooy ja xam ne tahaddadat limu na lëxoo ñeel ko fawaidu ay njariñ kaa ilmi ni ki xam-xam xadd sabata boobu sax na yedd faxu di jiñ xan jëxli di jëxlin walis réeruk boromuk réer waqub xin ak bonuk boromuk bon wa kullima ak lépp loo xam ne yenn faxu dana jëriñ li dir rashaadi ñeel boromuk jub وما أقل لغا خمنا يصفي دانا سلل القلب قلبا وهو مومنك ما موي لغا خمنا وديما سخلفنكو وإن قل للا أقدون تنيو لفنا منه تموم قاله وحنكو الحكيم أجي خمج حكم وكل ما أقلب لغا خمنا تقول ديسنا على النفوس تبقى نيا كمثل إنفاق نكيكم أقدون دليل li sax si ñeel jëmm baxi la joj nay na war saw mi ak koor li shari yi ñeel aji foqle mooy ku bëgg lekk lool wal xumóoli ak géem géem mooy ñàkk def dara luy tax a siiw mooy nëbbu làqu li mu bu tax yi shuhrati ñeel aji sàkku ak ciiwte wat tafaddili ak ko gënal dafa wax xam-xam bi gën ci xam-xam yi mu jàll si bëgg a wax jëf ji gën ci jëf yi gannaaw bu ñu weesoo gënale gi yàlla gënal yenn jëf yi ci coobareem ki moom ci boppam wax na ca addis ba ne la mu farataal ci ab jaamam rekk moom la gën a taamu ci ab jaam def ko nga xam ne kon la mu farataal moo gën la mu farataalut nga xam nañ koo sopp rek jàmbaa koy def ngir yokk tuyaaba ba weesu bu ñu weesoo nag ni yàlla gënale yenn jëf yi ci kaw yi des naa wax ne jëf ji gën ci jëf yi daal mooy jëf joo xam ne dana wees ka ko def jàll ci keneen keneen jariñu ca ni ki xam-xam boo xam ne ka ko xam ma ngi koy jàngalewaat mbaa ma nga cay taalif ñuy jàng taalif ya nga xam ne xam-xam ba mu ngay dindi réeruk ña di dindi bonuk ña bon ci kaw ci kaw jàngale nga mu koy jàngale ba taalif gam ci taalif ñu koy jàng ka toppatoo muy wéy ak lépp loo xam ne rekk ab julit def na ko te moroomam julitam man caa jariñu ne ki gas ab teen ñu cay naan wala defar fu ñuy fajoo ba defar fu ñuy jaamoo yàlla ak lépp loo xam ne rekk doomi aadama def na ko te nit ñi mën cee jariñu lu mel noonu day rëy lool te bari njariñ ndax nit mën naa yàgg àllaaxira ay junni junni at te lu te jeexit ja di ko fekk kon nag jëf joo xam ne day weesu ka ko def jàll ci keneen man nga koo jiital ci jëf ya gën a am njariñ mu teg ca nag jëpp jëf joo xam ne day sellal xol jëf ji sellal xol yaari xeet la ci indi benn bi mooy jëf joo xam ne dëppoo ak sunna maanaam yonent bi santaane woon na ko mu di ko def nag te saxal ko nga xam ne du ko jénnal tey mu def ëllëg mu bàyyi da koy saxal rek mu wéy ndax addis ba dane ahabul amali ilallaahi adwamuha wa in qalla li yàlla gën a taamu ci jëf yi mooy jëf ji ci gën a sax ak doon sax dafa néew bariwut beneen addis ne man awadahu llahu fa tarakaha malalatan maqatahullah ku yàlla tamal ak jaamu yàlla mu bàyyi ko rekk ngir yokkat ak mu sàppi ko yàlla mere ko mere mu ñaawa ñaaw jekki-jekki jëf lu rëy rëy lu méttee mét di bàyyi fa saasa baax na sax waaye amul solo li nga xam ne moom la saxal jëf ju néew ju baax amee solo kon jëf jooy sellal xol benn bàngoog ñaareel ba nag mooy jëpp jëf joo xam ne dafa diis ci bakkan bi ndax benn addis nee na afdalul amali ma ukrihat alayhi nufoosu jëf ji gën ci jëf yi mooy jëf ja ñu forcé bakkan ne bakkan da ko doon bañ ñu forcé ko ca jëpp jëf joo xam ne dafa diis ci bakkanu ko koy jëf loolu nag moom nit ñi dañ ci wuute kenn ku ne ak la ko diis bu dee ku nay génne àllam joxe ngir yàlla da koy diis kon nag ab nay jox alalam day nekk lu réy réy lu mag te def alalam ci yoonu yàlla moo gën ci moom baril naafilay julli wala naa naafilay koor ku bëgg lekk lool woor day metti ci moom kon nag woor moo gën ci moom mooy def leen lu bokkut ak koor koo xam ne itam yëg na ci boppam bëgg ak siiw ak daraja ak ñëpp xam ko la gën ci moom mooy rekk muy nëbbu boppam di moytu lépp lu koy taxa siiw ak luy tax ñu xam ko kenn ku ne daal la nga xam ne mu gën a diis ci moom mu wuteeg xel mum téefu bakkanam bu dee jiyoonteeg moom rek loola day daal nekk jëf ju rëy rëy ju màgg a màgg wa aqbahul isyaani gën jaa boni ak mooy maa mooy mooy ga nga xam ne xassaahu wawal na xol ba ci taqsiyatan ak wawal wa ansaahu te mu fàtteloo ko taaxatan ak topp ñi nga xamee ne top yalla yi muy jëf gënanté nañu moy yalla itam gën nañu bonante moy yalla ga gëna bon nak moy ga nga xamné day wawal xol xol bi du bëggati lu baax kenn du ko ci mëna jëmele ku ko bëgg a ci top muy bañ bu ñu né moy yalla gi gëna bon mooy mooy yàlla guy wool xol nee nga waxe woon rekk ne lay sellal xol yaar la jëf ju baax joo xam lu mu néew néew kooko da koo saxal teg ca la diis ca bakkan ba mu di ko yenu bañ a bakkanam ba tey kon mooy yàlla gën a bon tey wol xol ngoone rek mooy yàlla goo xam ne kooku da caa sëgg rekk di ko def di wéy ak nag gépp mooy yàlla goo xam ne bakkanam da koy bànneexoo ka neexlu bu demee nag ba xolam woowu am na yent yoo xam ne nee nañu daañu ko ca dindee ba ci jëkk mooy mboolem béréb yi nga xam ne dañu fay